salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa seen mbokk taalibe Maam Mor Mbaye yoonu géej gi mooy def vidéo bu gàtt rek di masawu ñëpp di baal waa réew mi àq tey baal ñëpp àq di leen wax ne leen euh, lii nu duggoon euh, ñun duñu politicien man duñu politicien ndax fii am na ay politiciens yu mu dëkkal daan nañ ma wax lu tax politico man leen du sama domaine. Idrissa Seck ñëw dugg ci Serigne Touba ñëw toog fii ci sama saal xamal ma ne ma lu ne dégg naa ko ci waaye sëñ Touba ma doy ma dégg ñu wax ko lu ne ma ànd ak moom ngir Serigne bi lii moom ma boole ak moom. président Macky Sall li itam noo koy ñaanal suñu borom dolli ko jàmm dolli ko wér di ko xamal ne ko li mu am Touba moom moo ko fa def. ndax war ma jum jox Serigne Mountakha ak ju mu jox te tariixa yëpp loolu moo ko may la ko sa que nit mënoo say kilifa am fuñ ko teg ndax man gis naa kilifa yu bari yoo xam ne seen xarit la ñu am fu ñu ko teg kon nun li ñu war nun taalibe itam nu am fu ñu ko teg te kenn ku mës a dégg kàddu gu juum ci moom amut ci ñun ñi ñëpp mësut am saa su ne même bu dee gañe Touba ak bu dul gañe Touba yëpp li ko war maa ko fay def te mën naa waat ci Serigne Touba la mu fa def benn président bu ko fa mës a def amut man xam naa ci lu wér a wér a wér la mu fa def kenn ko fa mës a def amut man nag su ma ko seeree dana mën a nekk ndax lekkuma dërëmam te kii ma àndaloon muy sa Seck bu bu leen bu ñu foog ni dërëm moo na boole maa doon jël sama oto def ci sama gasoil dem tuubaa bi campagne dugg ci nit ñi di wax ak ñoom bëgg mu gañe dëkk ba kon la bëggoon man am na Euh, bëggoon maanaam mu raatale fépp damay dem fépp waaye Touba laa ko xaar fii ma dëkk ci Thiaroye amul kenn ku ma woo téléphone ne la woteel Idrissa Seck amut amut Touba laa bëggoon ñu xam ni kat jàpp na leen moom it xam na li ko sëñ Touba defal ndax xam na ne la mu am Touba fi ne amu ko fenn musu ko am tey li mu am ci élection yi mosu ko am loolu nag moo tax may wax ak euh, président Macky Sall di ko xamal ni ko réew mi na ci woote jàmm te xam naa loolu lay def ndax lépp lu mu mës a dugg rek am na ci ndam kon cinq ans yi ñoo ngi ñaan yàlla na ci am ndam ci dara ji rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di wax nit ñi nan dal nan dal te xam ni senegal kenn di ko séddoo ku aal xësa tax nga wax lu dul yoon it li nga war a def mooy nga jéggalu ko kii di maître Moussa Diop birki démb li xew nga xam ni maa moom ay xarit lan bis bu ma mës a def day ñëw def ci lu la ca war Porokhane laa dem ñu wax ma li muy def ci kaar yi ni mu leen di jàppale dakaar dem dikk daayira Sëriñ Tuubaa ba fa nekk ca Sotrac ba tey mu ñëw yokku leen tax ci tele bi laa daan toog di ko tudd bi mu waxee wax jooju rek laa taxaw wan ko ni ko lii nii lañ ci war a waxee ndax Sëriñ tubaa nag ak naleer lu ko nit lu nit mel na mel ci àdduna man duma nangu ko wax jëm ci ndax defut kenn dara la ko sëñ Musaa Ka waxoon du merloo mag mënul gante lay dëkkam amul xaar ma yàlla ak nit du xass nit ci wa kërëm fofu la Serigne muntaka nek kon rapport yi ko booleeg yoonu nit mon président Macky Sall doy ñaan loolu continuer ci darajee rasulullah seen talib bi Mamor mbay yoonu geej gi moy dalal ñëpp di leen ñaanal tay ñaan ñu voté woon ak Macky Sall ñu voté loon Idrissa Seck ñu voté loon Sonko maître Madické Niang président Issa Sall yalla yalla jël jàmm ak xéewal passaré ko ci seen kaw ndax leen rek ngeen bëggoon Sénégal jëm ca kaw raw dëkk yëpp yal na ko def nag ci cinq ans yi ñu jëm ci darajay rasulilah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf